أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أورثها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسار الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنقتدي لولا أن هدانا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokk jullit yépp fuñ mën di nekk ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ndokkeel te di leen siyaara te di leen ñaanal yàlla jàmm ak xéwal yàlla nañu ko yàlla boole di mbokk yépp ak fuñ man di nekk moo xam ñu nekk Sénégal la wala ñu nekk euh, ci dëkk Afrique yi Côte Mali Burkina Mauritanie Maroc wala ñu nekk itali France Amérique Arabie Saoudi mbooleem fu ab jullit nekk rek ñu ngi lay nuyu ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ndokkeel bu baax a baax te di leen ñaanal yàlla jàmm ak yàlla ñu ko yàlla boole di ñaan yàlla tawat bi nga xamante ni moo nekk ci àddina bi ñu koy covid 19 yàlla ko yàlla saafara yàlla ko yàlla didd ci jàmm yàlla saafara lépp te dolli xéewal yi defal jullit yi ak réewu jullit yi ak yeneen réew yépp daal yëpp yàlla yàlla defal leen jàmm ci barke alquran barke yonente bi ñu ñëw ak yéen nag tey jii ci seen njariñ lu am solo ñu koy wax آه، سورة الفيل وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأس مأكول muy saar boo xamante ni liñ ci joxe tey jii ci secret saar bu am solo la ci dindi ay ne ci nit wala dindi cat wala pexe saytaane wala pexe jinne yu nekk ci nit da koy dindi ba mu set moom saar bi suratul fiili am na ci aaya boo xamante ni aaya bu kéemaane la boo xamante ni barke bi ci nekk jéggi na dayo mooy aaya bi ñuy wax àlla may jaxal kay duhum fi taddi liilin nga xamante ni boo xoolee lettres yi ci nekk muy xuruf yi daf lay jox benn isbalay ahsam bu ñuy wax waaxidun bis nag xaraf la jàpp ba tey soo ko seetee ci ismu yi tamit am na ci ismu boo xamante ni euh, ci langue sariyaan daf lay jox la mu xare jaxadin muy 913 mook aay bi nga xamante ne mooy anami jàll kay doxum fi tadlin ñoo tolloo waaye insaan lañ ci joxe ñaari secret rek yoom day dindi liggéey ak ku ñu takk xala wala ku cet nekk ci moom wala comme daa nekk ci ay jafe-jafe incha allah bu ko jëfandikoo rek ci wér du mbaa sangat suñu mbalum dina ko saabara su ko defee ki nga xamante ni daf ko bëgg a liggéey ci wàllu kurus mën na ko def liggéey ñetti fan wala juróom-ñaari fan dafay def suba bi ak ngon bi ginnaaw bu def astaghfirullah astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa xayyul qayyum wala mu def astaghfirullah faqat da koy def 111 moo toll ak kaafi mu julli ci yonent bi salaatul fatiha bu ko mané baax na 111 wala salatul nabi bu man bu nabi mu daal jàng alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil allami jahal kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayral ababila tarmihim bi tijarati min sijilin fa ja'aluhum ka asfin makulin bu ko defee da koy da koy werd sa os la koy sikat moy adadu eh, eh, kafi bu noppee nak mu daal jëlat jëlaat kurusam baamu ay bi àlla mi jaxal kay do fi tadlilin mu liggé ko 913 bo noppee nak nga dal ci tek lamu khana jaqa din lamu khana jaqa din man nga ko wo def ko yaaw ni da ya lamu khana jaqa din moom nga liggéey ko adadu 913 913 mook aaya bi ñoo tolloo soo noppee nga tëjee ko salaatul fatiha wala salaatu ala nabi bi boo man 111 incha allah lii ma la wax ni soo ko saxalee juróom-ñaari fan wala ñetti fan bépp tolof tolof wala liggéey doonte fitis la wala muy nekk jalaa wala mu nekk loo xamante ne liggéey bu gën a garaaw ci liggéey boo ko defee ni incha allah sa mbal dana dindi liggéey boobu nekk sa yaram ba mu set yoon bii ma la jox nii bu dee ki ko bëgg a bind càngaay day bind alam tara kayfa fa'ala rabbuka euh, ba mu ba mu jeex su ko defee su koy bind nag euh, su ko mënee bind cent 313 moo gën su ko mënta bind adadu 313 bind ko adadu 111 bu dee bu ko bu ko bindee adadu 313 day baamu aaya bi aaya bi da koy baamu 913 daal di baamu la mu xana jaxadin 913 su ne yàlla mën loo na la doomu lam xane jaxane nga dikk bu ci nekk chaque fois doom ya soo ko mënul tamit nga yem ni ci li ma wax ni ci saafara si rek 913 la mu xane jaxadin bind aay bi 913 euh, daal di bind saar bi 111 wala 313 nga daal di wut sungufu xay boo amee sungufu xay baax na soo ko amul wut sungufu foofu euh, ak gollañ boo ko amul wut sungufu sump boole koog moom am na la yoon boo xam te moom déggu sumb téeméer déggu sumb lay àndal ak fukk ak benn yu nekk ci armée waaye boobu dafa kéemaan ndax képp koo xam ne jëfandikoo ko ku la liggéey day faat ku la liggéey ak liggéey bu mu la mën a def day génnaat la moom liggéey bi day dellu ci kawam soit mu génnaat bi bu la neexee ne man ngaa wut euh, sungu xay ak foofu euh, daal di wut sump boole ko moom waaye boo ci boole téeméer déggu sump yam dafa ne ci armée boobu moom musiba la moom kon su defee nga sangoo ko fukki càngaay ak benn fukki càngaay ak moo tolloog xuuwa di onze incha allah rabbi képp ko am te ne njibar nañ la mbaa ñu def ci ay liggéey yu bon ñaari yoon yi ma joxe yëpp boo ci utiliser incha allah ci kattanu suñu borom liggéey bi nekkoon sa yaram dana dañ ba set wicc naka la ko liggéeyoon du am jàmm man ngeen bàyyi ci xel baax loolu moo nekkoon saar bi xam andi na leen ko tey muy alam tara kayfa bëri na ay secret ni muy dindee ay liggéey moom saar bi noonu lay ubbee nit ci wërsëg soo koy ci moom def def nekk ci yaramam rab nekk ci yaramam day tax maanaam nit ki euh, euh, day tëju cat rek bu nekkee ci sa yaram te dañu da lay tëj liggéey même soos su dee rab dafa nekk ci yow day tëj nit ki kon nit ki yëpp dekk bu dañee ci moom wërsëgam day ubbeeku kon su ko defee yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel euh, di jëfandikoo alam tara kay fa même bu fekkee ne mënoo koo def comme lii di ñu joxe adadu 45 heure boo koy suba na nga ko liggéey 45 moo jàpp aadama nekk ñetti awa 15 fois 3 mu jox la 45 boo ko dee liggéey 45 heure boo xëyee suba teel kenn mënu laa liggéey ba jàpp la pexey noonu ak seytaane yàlla musal na la ci kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngeen di dokkeelaat di leen siyaar yow mi abonné goo di seetaan vidéo yi na nga abonné ci euh, seen youtube bi abonné ki amagul numéro bi tamit mu jël 77 567 97 19 wala 70 305 81 33 loolu mooy numéro bi ci ma def bu fàtte indicatif bi double zéro 221 bi nga xam dañoo ne ci kaw subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fiikum